Ibrahima Mané maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nga nekk président wu commission sociale du mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor est-ce que mën nga ñu expliquer euh, pour ñu daal di comprendre euh, ban problème ngeen am ak euh, maire Ousmane Sonko par rapport ak logement bi nga xam ne étudiants yi jàngee fii ci Ndakaaru te bàyyee ko ci Ziguinchor am na ko ñu waroon leen a génne foofu en tout cas coow li bari na lan moo waral coow li exactement. je pense que euh, tey jii ñu bu ñeneen ñeneen bu ñu ko jàppoon euh, problème lii ñun dañ ko jàppoon dañoo yaakaaroon du problème en fait. dañoo yaakaaroon du problème ñàkk waxtaan la woon rek mais dañoo gis ni moom de xëy naa dafa ne xam nga. def affaire bi problème def affaire bi tendance parce que lii dama ne comme euh, immeuble boo xamante ni yoroon nañ ko fee ci Grand Dakar depuis 2016 ci régime Ablaye Balde vous léegi si kaw loolu euh, problème bi fu mu commencé mooy euh, c'était moment boobu c'était si régime Abdoulaye Baldé lañ njëkkee d'abord parce que euh, régime Abdoulaye Baldé avant ñuy dem élection dañoo ameloon borom kër gi xaalis parce que dañoo fay première six mois yi mu des second six mois boo xamante ni fay ñu ko vous voyez léegi ñun su la ñuy tàkk suñuy dëbës ñëw ba Ziguinchor pour tenir benn point de presse à Abdoulaye Baldé pour maanaam wax opinion publique bi ñun tamit daal léegi lii moo ñu neexul na Abdoulaye Baldé Faye borom kër gi léegi bu ñu ñëwoon le ministre Doudou Ka moom moo ñu woowoon bu mu ñu woowee pour acquérir encore situation pour laaj ñu lu xew parce que ñun xamuñoon ci dara mais moment boobu noonu xam naa nekkatoo daa fekkoon moo nekkoon directeur campagne Abdoulaye Baldé mais ñun dañu nekkul di calculer loolu. muy Doudou Ka muy Abdoulaye Baldé muy Sonko ñun calculé loolu parce que ñun dugg ñu si politique ñun tant que étudiant yaay am problème rek ñoom la ñuy xeexal ñun nekkuñu fii di calcul yooyu parce que yow fi nga faat fi nga faat loolu yàlla xam ne suñu yoon naw si ñuy ñoom la ñun ñooy calculer loolu kaa ngi gis affaire yi buñ dëkkee ñu toogal waxtaan ak moom mu expliqué la su la ñëw moom mi Doudou Ka daal dañuy may cinq millions cinq cent léegi ak tëgal foofu benn conseil nañu man lu ma leen di conseil ànd la ko xaalis moo leen may nii bu leen ko dugal seen kees jël leen ko ngeen dem fay paa bi léegi quelque cent mille falté bii toog ngeen dem tamit peut-être ngeen réclamer seen xaalis parce que di ngeen a signé contrat ak paa bi mais mairie moo signé contrat ak paa bi mais lii moom seen xaalis la lu ngeen moom la léegi xool na rek la ngeen def soit ngeen dem si mairie ba réclamer seen xaalis wala bu yóbbu bu leen bu ngeen toog man daal may naa leen mais lu mu leen mën a conseil mooy jël leen ngeen am xaalis bi te yaa ngi gis. Hmm. noonu la ñuy dem ñu dem fay boroom kër gi borom kër gi assez de xaalis lañ ko fayee te moom virement lay jot léegi bu loolu amee su ne ñi dem jàngi bu municipalité toogee def nañu lépp jéego yi yëpp pour mën a gis suñu maire toog waxtaan ak moom pour xamal ko contrat bu ko lié bu lié mairie Ziguinchor bi ak bailleur bi ndax nit daal bu gan ñëwee. il faut que nga toog ak moom di waxtaan di nattaan ak moom xamal ko tamit peut-être lu fi nekkoon léegi ak su parce que mun naa at bi nii def nañu six déplacements mm. Dakar Ziguinchor te six déplacements yooyu yëpp suñu xaalis la ñuy jël ndax ñoom kenn suñu jox xaalis mais mun naa wax dépassé nañu ci plus de cinq cent mille francs ci dossier bi nii léegi bu ñëwee su troisième déplacement bi lañuy ñuy door a gis le maire. bu ñu toogee ak le maire daal di waxtaanee moom xamal ko contrat bu ñu liyee ak moom si lu ñu ne effectivement gis na ko yëg na ko mu di lu baax loo xamante ni tey jii nii suñu jeunesse dañ kee defar te incha allah dinaa ko wëyal léegi si wëyal boobu tamit ñu wax tamit ci question de cinq millions lu ñu fay bailleur pour xamal ko ni carrément ah mairie bi amel na pas bi bor mais moom la maire. bañul mu d'accord nii dëggantaan Ndiaye waaw mairie bi gis naa ko mairie bi amee na Habib Bor ndax mandat bi Abdoulaye Baldé dugaloon na ko mais xaw ma seen ban machine moo amoon problème genre looloo tax ay affaire bi yéex a dugg ba ndëgam tey nii ko ah te mu nanguwaat aussi que nii parce que bu ñu ko waxee li si xaar dañ nanguwaat aussi que dina am dëgg léegi ñu daal uti solution si kaw loolu mu ne est-ce mu mii la nañu est-ce que su ma jëlee xaalis bi. diiree ko paa bi tamit est-ce que du ko jot ñaari yoon ñu ne ko déet ñun wax nañ ak paa bi nee nañ ko bu la mairie viré xaalis bi nag ñu delloo suñu xaalis si le paa bi d'accord si loolu mën a waa baax na loolu de amul problème parce que est-ce que dañu ma expliquer lépp comprendre naa ñoom bu ñu ma rek man dinaa leen woo ma ne leen seen xaalis ngi nii léegi ñuy tudde euh, ñu tudde maanaam solution pour xool nu ñuy def mun nañu est-ce ma nekk defar sa subvention ñu ne ko non bu mu indi complication loolu xam nga nu ñuy def teel cinq foofu noonu. comme que am nañu projet lii superposé nga jàppale ñu si lii superposé nga yokkal ñu jàppale si biir ok loolu lu baax la am na ay partenaire yoo xamante ni si loolu la ñuy yëngu xëy na dinañ si jublu ba yàlla boo ko defee incha dina antu loolu la ñu tombé d' accord ak suñu maire boobu ba léegi on n'a jamais parlé de ces cinq millions cinq cent foofu lu ñu arrêté di wax ay waxi cinq millions cinq cent parce que dinañ ko jàppoon homme de parole lu mu wax rek da ko def da koy def. loolu la ñuy jógee dellu dem Dakar mais balaa ñuy dellu dañ fi bayaloon benn kaddu ñu ne ko ñun laay war a suur yi da leen ko ñaan bu leen mel comme euh, équipe bu jógee jàll nii parce que équipe bu jàll jógee jàll dañuy gis ni retard paiement bi day am retard bu baax mais ñu leen di ñaxtu nag yéen na ngeen gaaw si loolu boobaa du ñu am problème ak paa bi genre parce que ñun tamit mun ñu dëkk ak suñu nawle ay nit ñëw di ñu tiim di ñu naan fay la ma sama xaalis wala di la woo téléphone même bu dee ñeneen duñ ko dëgg loolu tamit neexul as gor du ko nangu. mën na ñëw incha allah dinañ si wéy loolu am lii la ñuy tàggatoo ak suñu maire ñu dellu dem Ziguinchor et autant pour moi lu dem Dakar dem continuer suñu jàng lii ndigum toog toog bu ñëm tamit lu ñu daan bañ mu dal ñee loolu dal leen bu bi ñëw tiim ñu borom kër gi nañu nañ ko feex xaalisom di ñu woo téléphone parce que man mii may responsable kër gi ndax man la woo man la woo ne ma carrément waaw. yéen ñu dem tabaski mais ba léegi jugoon naa bu yàgg di <coughs> di laaj sama xaalis mënu ma ko jot yaa ngi gis. <coughs> mais bu ngeen demee tabaski nga ñëwee ba ngeen fekk seen i bagage yu bëri ba mu leen bett mais parfaitement pas bi il a raison ndax borom kër la te dafa soxla xaalis tabaski lañ nekk vous voyez parce que il a beau attendu. <coughs> il a beau léegi bu loolu amee ñun du caagin dañoo jiggi saa rek jug rek daal di manifester wu balaa ñuy manifester wu daal lañ njëkk woo xamal leen lu paa bi lu mu ñu wax mais en notre grande surprise kooku di euh, sixième maire bi chargé de la jeunesse xam nga rek dama ne boo nekkee ak say rakk bu ñu nekkee ci pression ak lu mu tàng tàng tàng yow mi seen mag yow yaay ko leen war a dalal nit dina nekk pression am yeneen melukaan yu muy waxee sax yow mii mag ne ko ah déet defal nànk même bu dee problème bi mënoo ko régler si saa si mais wax ji rek wax ji rek mën na régler affaire yi mais loolu tel na pas le ak ñoom maanaam kii wax na nii rek yow tam nga topp ko si lancé boobu noonu ah ñun tam si lañ jóg daal di def ñu front te front bu ñu gën def guddi lañ ko def pour alerter maanaam opinion publique bi pour alerter tous les autorités de Ziguinchor vous <coughs> bu ñu jógee si loolu tamit bu loolu amee à deux heures du matin parce que le maire jógee na dem mu ne carrément non je peux dire euh, autant pour moi pas le maire mais moom ba Koli bu ma daan tenir benn point de presse am je pense sama barki démb la xam nga xam nga je pense barki démb la mais bu ñu duudu daan woo c' à vingt deux heures duudu mu ñuy woo à deux heures du matin duudu nekkuloon sa au courant ndax dañ ko woo pour wax ko ni carrément sa boo yaa ngi grève. xamutoon jug si digg lal bi toog wooñu pour s'enquérir suñu situation ñun c'était ça notre objectif en fait pour autorité yëpp dëgg ñu su lu ñuy dund bu waaye bu ñu wooyee si lañ toog mu laaj nu lii problème bi ñu expliquer ko problème bi dafa paran pour fay ñu ne ko doo fay soo comme si ñun dañoo xamoon ne ah kon kii bu ñu joxoon xaalis de kon xam naa de maa yote dal kon ñëpp dañu wax carrément ah kon da nga daan ñaan ñi dañuy politique mai dafa ne day ñu ne ko ñoo bañ doo fay doo si dal ndax feeñ nga bee paase xaalis boobu mun ñu ko jot ndax xaalis boobu indoon na problème kon na nga téye sa xaalis ñu ñoo la a ñaan bañoon na parce que daf ñu ne man duma am xaalis di ko jox ay jàmbur yéen mii nekk samay rakk ñu ma bokkal yéen tey ngeen nekk si problème man nee na duma leen jox xaalis yaakaar ngeen su ma tëddee mën naa nelaw ñu ne nangul nel la ko mais yow tam faa nga nangul ñu ko ñun baax na soxloo ñu xaalis bi ne ñu est ngeen ma bàyyi tamit ma jox paa bi avant ñu ne ko doo si dal ngir yàlla rek bàyyi ñu ñu liggéeyantu ak suñu ak suñu maire yow temps pour moom tam mu toog toog toog xalaat ci la nekk ci la mu ñëw ci la ñëw mu nangul ñu loolu mu ne ok nangul naa leen ko kon yaa ngi gis kon donc ñoom li ñuy daf ñu jox xaalis kon xam naa bu ñu joxoon xaalis day gën a tiir bu ñu jógee aussi benn instant ñoom dañoo xaar dañoo xaar moom la maire dañoo xaar ba ñu bu ñu defee suñu suñu lépp ba pare ci la ñuy dooru au bi te ñoom joxoon noonu joxoon nañ leen numéro pas bu yàgg nee na leen carrément mettez en euh, euh, il faut appeler le bailleur pour ngeen xamante au moins parce que bi ñu ñëw signé contrat ak paa bi mais yenn signé mairie moo signé contrat ak paa bi ñun luy suñu coobare mooy yéen l'essentiel ngeen woo paa bi xamante rek ils ne l'ont jamais fait léegi jour boobu noonu lan lan lemee bu ñuy bu ñu defee suñu fond pare man ba def tenir suñu point de presse bu ñu si pare rek ñoom nekk après dañuy woo mujjee woo paa bi mais le maire Ousmane Sonko même mu moo woo paa bi pour laaj ko ba xam parce que am lu ko leer ba xam dëggantaan Ndiaye moom la jiyee moom moo def loolu paa bi confirmé ko ni carrément man maa ko def ne paa bi ah yow gisoo nii balaa ngay def loolu man nga war a woo man mii kilifa ji wax ma ko mu ne ko man nan laa lay wooyee te yow yoon ma sa yoon ma sa numéro lu may gënal lu ma war a wax xale yi mooy mu wax la ko yow parce que yaa seen kilifa mais damaa xam ne xale yéen la fi nekkal te xaw ma si yéen kenn moo tax lu may wax ni wax ko xale yi te il a aussi raison yoonam la su am la nekk nekk. ñu jàpp ne tey suñu maire boo gisoon mu ne moom day résilé maanaam day dagg contrat bi. waaw émotion la topp rek daa mer rek kon ça dikk suñu maire ñun waruñoon yëngatu kon suñu gisee loo xamante ni jaaduwul ñu waruñu wax dañoo war a noppi suñu meer xëy naa nga def nga def lu maanaam peut-être loo bëgg nga def ko te ñun duñ si wax ñun doxuñu si loolu. léegi fa lan ngeen lan ngeen fas yéene parce que am na ñuy wax ne yéen ay partisan Doudou Ka ngeen euh, lan ngeen fas ne def euh, euh, parce que tëgg ngeen fi ay concert u Casserole foofu Ziguinchor def marche voilà non non si tënk xam nga tëj nii Sénégal lañ nekk Sénégal boo defee dañuy wax boo deful dañuy wax tey nii ku wax sa opinion sax ñu ne politicien nga tey nii ku wax tey nii dëgg Sonko nga xam ne lii jaaduwul sax ah non faral si Sonko yow da contre Sonko que les gens que nit ñi genre xalaat yooyu noonu man sénégalais laa waxal nañu tey si mbir mi nañu tey si mbir te def nànk bu nga bu nit di wax nañu bàyyi du xool maanaam ah, ah, lu nit ki di sol wala maanaam feemu nit ki mais nañ déglu bu baax nit lu muy wax loolu ak am solo loolu day tax ñu jàppale nit ki tey jii nii mu nekk sama leader mu nekk leader keneen ñu ñoo ko war a jàppale parce que dans la vie si kër àdduna nul n'est parfait bépp doomu aadama de juum bépp doomu aadama de juum loolu nit bu ko xamee rek bilaay jàmm ne ñooy léegi ñun bu ñu gisee loo xamante ni jaaduwul. Hmm. bu ñu gisee loo xamante ni day lor Ziguinchor waaye arrangé Ziguinchor waaye kon dañu war a noppi noonu ñu bàyyi ko mu jàll. kon léegi xeex bi jeex na wala jeexul. xeex bi xeex bi ñun de mën nañu wax jeex na parce que lu tax démb dafa génn def conférence de presse. waaw tenir conférence de presse ne moom day arrêté say bi le 30 janvier xam nga moom ngi contrat bi boppam te contrat bi jeex na depuis le 2 novembre deux mille 2022 te moom toog na moom jour tabaski bi balaa muy gën ay collaborateur am ñoo ñu ki génn ñu ne ñoom dañuy rompre contrat bi ñu dañoo décider dañuy rompre contrat bi moom Ousmane Sonko toog jour tabaski bi mu dëggal loolu ne ñuy fay de janvier bon novembre parce que novembre la contrat war a jeex bu ñu fayee loolu ba pare dañuy résilier contrat mooy dañuy dagg contrat bi léegi dama mënoo doon ñëw encore nga toog at si kanam sénégalais naan damay arrêté di fay le trente janvier janvier deux mille vingt trois te contrat bi jeexoon na depuis le deux janvier deux mille vingt deux boo xamante ni daanoon fay sax léegi xam nga arrêté encore fay le trente novembre c'est si yow yoon yaa ngi yoon te si kaw loolu waxaat na ne parce que xam ngeen xale yi seen bagage yaa ngi si biir eh, kër jooju noonu te bu ñu delloo foofu la ñuy dem loolu mun naa ko waat ak vendredi bu ma nekk nii boo gisee ñu toog si kër boobu noonu loolu c'est grâce man ndax paa bi dafa ma woo ne ma ah maane contrat bi jeex na te kenn ñëwul kenn woo ma pour wax si wàllum renouvellement contrat bi lan laa wax paa bi ne da ngay comprendre Ousmane Sonko parce que jour boobu sax lañ ko convoqué si kiiwu Adji Sarr bi mu ne ko da comprendre Ousmane Sonko tantôt mi ngi problème bi tantôt mu jóge si problème bi loolu moo tax amul jot mais mais ko fan yi rek incha allah dina ñëw renouveler contrat bi xoolal loolu de te tout en sachant que xam naa ni Ousmane Sonko nee na day résilier contrat bi loolu moo tax ñu toog si kër ji kon paa bi xamutoon ni Ousmane Sonko nee na day résilier contrat bi. ko xamoon mun nañu. génn na loolu mooy fee bi Ousmane Sonko loolu la war a xamal sénégalais yi xamal jigéen sor waayu mais ñun lu ñu métti mooy yàq suñu der di ko toog di ko yàq say say deru frère ñoo xamante ni tey bu dee li ngay wax dëgg la ni yow yaa ngi pour jeunesse bi te ñooñu uniquement say frère amul benn sens nit ki boo amul grandeur taxaw si sénégalais wax dëgg bi xaw ma kon yow tey jii nii ñun la war a xoolee maamoon tey ñun la war a nawee parce que tey dañoo sentir ni nit ki boppam la d'abord. kon moom lu muy wax nii naan waa man jigéen sor waayu sénégalais kon nit ki tamit boppam la d'abord parce que lu mu def nii jaadul ab kilifa waru ko def avoir et la grandeur et la grandeur de dire au Sénégalais yi ñu ñoo négligé ba ndëgam heure bi nii et la grandeur de dire aux Sénégalais que xale yi ñoom ñoo am dëgg mais déedéet xale yi ñoom ñoo politique la dañuy politique te léegi booy wax nit politique indi preuve man yaakaar naa tey su may diiñ wala bu may tuumaal nit ne la yow da politique su may génnee taxaw Sénégalais yëpp ma ne ko lii lii moo tax ma ne diw dee politique mais damay politique te nga jàpp foofu ah politique moo nekk si ginnaaw moo nekk si ginnaaw loolu la ñu war a bay loolu la war a Sénégalais yi toog ñaxtu maanaam nit ki boo ko bëggee yow yaa ko war a jàppale si loo ko war a jàppale saa yu juumee nga ne ko ah bëgg naa la de mais lu nga def nii moom neew si yoon tax nekkal si yoon bi loolu mooy jàppale doomu aadama parce que ñun ñëpp dañuy juum ñu ñëpp ay nit lañu fii même même kon kon da ngeen di Ibrahima da ngeen di génn immeuble bi finalement wala. non finalement immeuble bi moom daal d'après lu mu teg moom loolu la wax nee na le 30 janvier bu paree bu paree nee na d'après lu mu wax bu paree fay day encore renégocier encore contrat bi mu signé ko encore. Mhm. parce que day fekk ni maanaam ñu fa nekkee da leen di génnee. maanaam defaraat encore beneen politique ci biir immeuble boobu mooy lan. am na daal ñeneen ñu fa war a loger. en tout cas nee na non non xamuñu ko xamaguñu ba léegi parce que loolu dara lay wax parce que mais nee na au lieu étudiant di ko indi benn agent salarié boo xamante ni mairie moo koy fay pour mu gérer kër gi te dinañ am seen politique bu si teg naan kër jooju noonu da ngay signé d' abord amoo droit politique te comme si ñun dañuy politique comme moom foofu la ko jàppee quoi ñun dañuy politique moom daal loolu la ko waxee léegi jusqu'à preuve du contraire ñu ngi xaar wax noonu lu ñu comprendre mooy. ñun ñëpp dañuy génn immeuble pas ñu génnaat ñun ñëpp pour mu jéem a defaraat moom nee na day defaraat nee na ko moo day raxasaat xam ne demee noonu noonu loolu lañ ko mën a tënkee. Ibrahima Né may fàttali yow yaay président bu commission sociale bu mouvement des élèves étudiants pour le développement de Ziguinchor. Mm-hmm.